diggante mbaar meeg daqaar gi laa taxaw di xalaat ku ni joxum njaar bu yoor yoore mu seddu nuy naan diggante mbaar meeg daqaar gi laa naan ku nii tuddal doom di ndawtal nag te kenn du ko yëg ku wopp muy seeta kay ñaanal di dàq safaan ku nii fajal sunuy woppi biteeg ya ca biir wal waj xumaahi jabaayam waxoon kilee du keneen ku ni jëndal pasti wootu tànk yépp ñëw mu leen di ñaanal di maslaak mag ñi nooy ni wëteen ku ni kuy làq yërmaane mboolem kër yi génn desul ku xew la muy jàmm ba muy xay dinañ ko fa seen kuy làq yërmaane mboolem kër yi génn desul ku xewle muy jàmm mbaa muy xay dinañ ko fa seen ku niy jëndal ordonnance fay lépp lépp mu mat lu metti metti du màttet mbaa kanam nga di xiin Cheikh Moustapha xel ma nekkoon nag ci aw turandoom la doon tab ga ca baayam rekk la jël benn yoon seex mustawa xel ma nekkoon nag ci aw turandoom la doon tab ga ca baayam rekk la jël benn yoon seex mustawa yaa lewet yaa yaatu ñépp nga boot yàllaa ko tànn ba muy ndaw mus jaar ci safaan yërëm nga mag ñi tëral ndaw ñi te xam ngërëmal sa baay yépp mosoo def njombe yaa ngi ci yoon ku ñëw sa kër nga teral mayaaje bépp jullit doo jànni yow doo waxit lu naa lii lu mu doon ku ñëw sa kër nga teral may xaaja bépp jullit doo jànni yow doo waxit luñ naa moo lu mu doon seex Mustafaa ku koox waxaale sayiduna sëñ siidi muxtaar ku am këb yar te am liimaan ubbil nga say buntu mboolem donga yépp ku ñëw nga daa koy tontu ñuy miimit nga delloo si leen nii rekk ngay mën mel xam lépp wax ko warul sëñ siidi jàmbaar nga yaa dis gor ki ñaan imaam da doy dindam yaa jiite sant nanu sëñ as de yow yaa di mooy ilimaan subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahi rahmaani arrahmaani arrahim malik yawmi ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraata almustaqim siraata alladina ancamta calayhim gayri almaxdubi calayhim wala ddallin rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mboolem mbokki jullit yi fi teew yépp mboolem mbokki lislaam yi fi teew yépp rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñépp waaye di leen nuyu nag ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo nekk jëwriñ ci kër Sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke toog ci jataayam ñu ngi leen ci nuyu ci aw di leen jot kàddu yi ñuy bëgg a waxit ci aw di di di leen sant yéen ñëpp waaye bala ñoo ñëw ci loolu ni ñu ñu jottali leen eh, nuyoo bit nuyoo bopp xalifatul am li taaifatil muridiya muy sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke tàggu naa ko waxtaan ak moom sàkku ne ko kat taalibe yi ñu ngi ci ay jafe-jafe te bëgg nañoo la sëñ Tuubaa bëgg naa nga ñaanal leen ñaan gu wér ba yaakaar ji ñu am ci noonu yaakaar jooje bañ a tas te te te ku ci ne ci ñoom lam bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ci réew mee yàlla jàppandal ko ko wax naa ko loolu mu ne ma loolu de danaa leen ko ñaanal ci sëriñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa rek lañ am te te te te te jege na yàlla jege yàlla goo xam ne loolu la ca teg jege jege na yàlla jege na yàlla xam ne luñ ci luñ ñaan ci moom danañ ci rafet njort kon nag boobu suñu xal daal bu baax ñun ñëpp ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen jotti noonu ma ko waxee ci turu suñu seex mboolem li njëkkee nag ci eh, cant gi ci sëñ Fallou Mbàkke mii di ilimaan ji ñu ngi koy nuyu ci yow turam di ko sant ci taxawaayam ci kër gi ci taxawaayam ci liggéey bii ko suñu waajur wu tedd joxoon muy Cheikh Mouhamadoul Mourtada te sëriñ bi joxoon ko maamam mu féetewoo ko muy sëñ Aafiya Mbàkke ndax sëñ bi liñ mujje takk ci lu mu wax yónni ko maam Cheikh fa takk jóg mooy ne ko demal ci jàkka ja ne aafe waxtu jotee nay nay julli boobu bi ko sëñ bi wax boobu ci biir kër gi ñëwatul ci jàkka ji waaye mi ngi jullee ci biir kër gi boo ko dee waxtu jot mu ne sëñ Modou Lamine Diop ñëwal jot lil ma ci biir waaye boo jox la ndigal sëñ aafe ne ko ne ko ne ko nay jiite jàkka ji te sëñ bi musta am naayib loolu loolu bi ñu demee ba tam xarit gi dugg rek ci la tàmbali am naayib nga xam ne booba daal suñu boroom xamal na ko li mu koy xamal mooy booba ngeen déggee sëñ Abdou Lahad naan booba lu fi ñëwati ñeel nag keneen ku dul man ndeysaan man la ko waxe <laughs> lu fi ñëwati neel ñeel na keneen ku dul man lu fi waaye indeeti bu dutub kaamilu alxuraan bu leen ma ko jox <laughs> kon nag alhamdulilah kon sëñ xool ñu ngi lay nuyu di la rafetlu sa taxawaay nee na ci ci kër gi ak ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi di ci teg suñ jarbaatu bopp bi di sëñ Fàllu Buso lépp nag maa maa ngi koy jotli ci turu suñ seex suñ Fallou Bousso mii eh, eh, di suñ jarbaat ñu ngi lay sant ci taxawaay bu rafet di la sant it ci turu daayira bi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne liñ waroon a taxawee ak ak sa taxawaay bopp lépp boole nga ko taxaw kon ñu ngi lay waa daayira bi ci boppam nee nañ naa naa la sant bu baax a baax a baax a baax sa waxtaan wi ak sa bëgg Sëñ Abdou Khadir Euh, waaye nag wax dëgg yàlla xamoo lu dul moom ndax moo la dalal alxuraan yar la waaw ku ne xam ne it sa waaj sa sa ñaari waajur ni mu demee ñoom waaye ak waaye ku ne nag xam ne ni mu fonki woon soxna maam sa di di xaritam fonk lool oh. kon nag loolu li nga ciy def euh, lu yella la lu jaadu la waaw ñun ñi sa nijaay xam loolu lañ la wax lu yella la lu war la lu jaadu la waaw waaye nag sëñ Abdou Khadre daana wax naan eh, nit dees na ko sant ca ca ca ca lam war ca la war lañ ko war a sant ndax ña loola war te defuñ ko ku dégg wolof la <laughs> kon nag yàlla nu yàlla war a dimbale ma teg ci nag eh, nuyu eh, ñeneen ñi fi waxtaan yëpp muy làmp faal ak ak Modou Lamine ñoom ñëpp rafetlu laa seeni wax bu baax ak euh, tagg yi nga xam ne jëmee ngeen ko ci sëriñ bi bég naa ci bu baax a baax a baax ak euh, sëriñ Abdul Xaadir bu mi mooy way wi rafetlu naa ko lool wi mu way sëriñ bi maa ngi koy rafetlu bu baax te di ci bég kon nag yéen waa ma teg ci waan yéen waa daayira bi maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Seex di leen gërëm di leen sant seen taxawaay bu rafet ak itteel gi leen bis bi itteel ngeen ànd ko nag ak mbooleem soppee sëñ Abdou Khadir yi ne ci réew mi ak mbooleem taalibe sëñ Tuubaa yi ci réew mi amuñu seenu fay waaye sëñ Tuubaa dafa dafa ñemewut bor dafa am pay sëñ Abdou ko daa wax sëriñ bi ñemewut bor dafa am pay am gi mu pay moo tax lu waaye jëf rek lu waaye jëf bu fekkee sëñ bee tax am na am na góor goo xam ne da suñ Fallu daa gane ji Ndakaaru booba suñ muy def saa bu xëyee ci yàgg na booba dafa jafe saa bu xëyee togg bool ñëw joxe junni suñ Fallu ne ko waa ji xamoo kañ lay ñibbi di te yàgg na mu ne ko ah Mbàkke yaay fayam suñ bee fay mu ne ko mu ne suñ Fallu ne ko suñ bee fay mu ne kon bàyyi ma jëf <laughs> kon nag dafa mel ne sëñ bi mooy fay sëñ bi nag moom ak payam jege na ko kon eh, yàlla na leen fayal yéen seen bopp mboolem yéen ñi dëgg seen itte ñëw fi ak mboolem ku yéene woon a ñëw te jotoo ñëw ak mboolem ñi fi nekk ci suba ba tey ak mboolem daayira bi nga xam ne ak ñañ ko àndal fan yépp ñu ngi fi di liggéey na ngeen xam ne sëñ Tuubaa du jaawale fi kenn ak kenn waxoon na maam bu Bousso mii ne ko yett de suñ borom musal na ci mu ne ko am mu ne ko mu ne ko fàtte ak juum ak jaawale te kat mboolem lu yàqu ci àdduna ak lu lëj yetti baat yi ki benn ko ci la jël ndax tubaab yi li ñuy li ñuy xam-xam àdduna dañuy juum tubaab bi li ñuy xam-xam àdduna dañuy fàtte <laughs> moom nag yàlla da ko ci loolu tax lépp ndax fi ne yàlla noonu man a moo dane ko yàllaa ma ci musal xam nga téere dañ jal la man laay yeson ki dut ki dut màgg na muy yàlla waaye waaye xam nga eh, yàlla lu mu dut eh, lottut ci defal kenn dara lenn ndax bu boobaa dut nekk xadiir <laughs> waaw mooy dogal lu mu waxut ne du ko defal kenn rek mën na ko defal kenn hmm. kon nag moom sëñ bi loo tax mbiram leer loo ndax fi ne du jaawale du fàtte du jum te yàlla yit yett yooyu la yore àdduna fi ne loo tax yore nu aw yoon te dara du jàngar ñàkk gi mu ñàkk gi mu wóor ne yàlla du fàtte ak yi nga xam ne du def erreur <laughs> loolu loolu fii ne moo tax àdduna jëpp lu ci ne fa nga war a jaar nga jaar ko aflaag yi <coughs> mooy wër a wër asamaan si ak suuf si fu ne fu ne yàlla du jum fu ne la nga fa nga war a jaar nga ngay jaar te nit kat bi ñu ko tuddee ne summiyal insaanu insaanan li kasrati nisyaani yi doomu aadama li tax ñu tudde ko nit mooy bari fàtte kon sëñ Tuubaa mi ñu yàlla defal mi ñu yàlla xéewe ah war nañoo sant yàlla bu wér a wér a wér a wér war nañoo sant yàlla bu wér te xam ne lu ko waaye jëfal de bu la fayee danga nga xeeb la nga ko doon jëfal bu fay gi ñëwee te it eh, eh, wax naa ko ba tàyyi sëñ Tuubaa laa doon liggéeyee laa doon liggéeyal ba saay moroom raw ma ab nopp mosu koo dégg waaye bët du ko gis waaw kon nag yàlla na ci yàlla dimbale ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant nag mboolem koo xam ne jëf na ci bis bi ku mën a doon ak ku ci ñaq ñépp ak ku ci teewul ñépp yàlla na nu yàlla boole dimbale boole leen fay kenn ku ci ne loo ci def rek ci yooyu koo xam ne yéene nga wala nga ñaq ci walla nga jëf ci yàlla na la Sëriñ Tuubaa gàttandu ak képp koo xam ne teew nga fi rek ak ñi yéene woon a eh, ñëw nag mooy fàttiwuma leen mboolem koo xam ne sa xol ñëw na rek yaa ngi ci ñaan gi ah, ndax ndax yàlla yaatu na te Sëriñ Abdou Khadir daanaka wax daana wax naan ginnaaw tubaab bi rek man man mandaa as as yàlla fekke naa ko ba tey ni ñu ñu ci téléphone bi ñu ne ko étali taalibe gàllankoor wala yu jaaxle mu ne taxal ñu def ñaan ñaanu mandat moo gën a gaaw <laughs> daan leen bi rek as ci yàlla <laughs> waaye nas tuuti rek nas tuuti rek nga ñu téléphoné waat ne ah gàllankoor ba dañ na <laughs> mu ne mu ne naa ko de kon nag eh, noonu noonu noonu mooy mbir mi ndax wa kër sëñ Tuubaa dañoo xamante naa leen ci jox misaal rek lu tuuti dafa am boo xam ne sëñ Saaliw nee na damaa toog sëñ Saaliw moo ñu ko doon nettali mu ne damaa toog soxla mu daray rabal lool yàgg na ne fii ne de moom sëñ rabal danaa bég lool dama bëgg a dem ci tool yi te xaw ma daal daraay rabal fu mu fu ñu jox nas tuuti rek sëñ bu Xaadir daal di lem daraay rabal yéen nii Mataar Jaxate mii la fekk ma ne ah daa mel ne suñu lu xat dafay yónni ndaw de man ah. ah. ko daa lu mu ne ko lu mel ne daraa la de <laughs> daa mel ne la nga doon wax de <laughs> moom la la yónnee ah, ceey sëñ Tuubaa sama positif a ngi dolli ko ci sëñ Saaliw ne ceey sëñ ngi dolli ci moom rek waxtu woo waxee rek waxtu woo waxee xam ne mi ngi fi waxtu woo waxee te am positif neen da xam ne ba tey sëñ baa ngi bi bi ci topp it mooy Sëñ Abdou Khadre dégg naa ba tey moom toog naa ci jotaayam di ko nett nee na Sëñ Abdou Sëñ Abdou Fatah dafaa ñëw moom Sëñ Fallu ne ma ah on de ne ma Sëñ Abdou am ngénte doon ko yëgle si waaye Sëñ Abdou Laat nee na moo koy tuddal sil boppam Sëñ Abdou Sëñ Abdou Khadre daal toog ci nee na ma nee na ma toog ci mbaar ma ci Baxdaad sëñ bi laa ko laam ci laa meññam laa ko déggee mu ne ma toog ci mbaar ma ci Baxdaad daal ne ah sëñ Abdou Lahad di wala loox waaye man de su ma sañoon man mi sëñ Fallu tudd la woon Abdou Fatah man la sëñ Abdou Lahad di wax ne ma demal tuddi ah, doom joojee boo ko defee ma tuddee ko ko ñetti ñetti yëpp boo ko dund <laughs> fi mu toogee ci jataay bi rek nee na bi jataay bi rek muy muy nee fekk man tàngal naa attaay ci takkusaan takkusaan gi ba génn ci mbaar mi fi ma fa laataa jógee muur woon ñu ngi fekk ma fa nee na nee na nee na daa bëggoon a dem ca kii waaye daa am ngànt neen daal daa bëgg nga tuddale <laughs> kon xam nga li ñuy wax li ñuy waxante moo gën a gaaw xaatif waaw waaw kon loolu lu ci ne firnde la firnde la loolu nag bu ko defee kon loolu lépp li tax ma nettali ko bëgg suñu positif ci suñu Tuubaa gën a dolli ko suñu ngëm gën a dolli ko ñu xam ne suñ Tuubaa moom li ma mas a dégg sëñ Abdou Khoudous sëñ Abdou Khoudous bi bi ko sëñ Blaat sëñ Saliou santee xel ko ba noppi man la yónni woon ni ma demal santali ma ko waaw ma dem nag mu waxtaan lu bari ma laaj ko lu baree baree bare mu ne mu ne mu ne li mu war a def mooy daa war a ku fi nekkal sëñ Touba ku ne ndigal lu mu indi nga jàpp ne ci la sa ngërëm ne waaye bul yaakaar ne nga naa ngërëm ba noppi nee na déedéet nee na nee na taalibe bi du wax nee na da nga yaakaar ne eh, fekke woon nga sëñ Modou Moussa fekke sëñ Fallou fekke sëñ Abdou Lahat fekke sëñ Abdou Khadir waaye du tee da nga ne sa ngërëm ci liggéey bi sëñ Saliou bii la ne nee na loolu mooy tax am ci sëñ bi lu bari <laughs> xam nga loolu xekmatu la boo xam ne ku ko ku ko jariñoo rek da nga mën a da nga mën a jàll kon nag yàlla nu yàlla dimbale bu dee loolu mooy waxi mag ñi yooyu bu ngeen ci toppee te ñëpp ci dangeen mën a jariñu ndax sëñ Tuubaa moom euh, sëñ Saari dama daa wax naan man di sëñ Tuubaa li tax ma xam ne yaar moom dama ko dégg mu ne ma mu ne ma yaar dama ko dégg mag damaa waxoon ne ma addi yeeg ceeb yee yem tuutiwaay bu mutu ko xeebe ndax ndax ceeb yi ndax sëñ Abdou Xaadir ma déggaat ci moom beneen mu ne mu ne nit ñi dañ dut xàmmee te xamuñ ne bunt bu ne am na ceeb bi ceeb bi boo ko yokkoon sax du duuti ub bunt ba moo tax booba lay booba la booba la booba la may nettali ne ma fukki lixlaas ak benn bareen lu mu ëpp doole ci ku faatu da gis ñu ko yokk di ko def fukki lixlaas ak ñaar di ko <laughs> te fekk fukki lixlaas ak benn mooy ceeb yi eh, ci ci ci bu dee bu fekkee bu fekkee bokk bokkut ak bis ba nga njëkkee dégg faatu ga waaw waaw moom ñeent fukk ci gën waaw kon nag loolu it ci moom laa ko nangoo kon nag yàlla nu yàlla boole dimbulee yëpp dama leen koy nettali ngir bëgg rek ngeen gën a góorgóorlu xam ne sëñ bi dong nga fi ne waaw waaw sëñ Saaliw li ma doon nettali kat maa ngi fàtte dane man addiyee bi ma dalagul rek laa la saa laa ko xemeem ndax juróomi dërëm lañ ma njëkk a jox ma génn waaye bi sëñ bi ubbee ci palanteer bi rek damaa ñëw jox ko ko mu ne xam nga li nga ma joxal <laughs> ma ne ko waaw waaye nee na ma mu ne ma boo fekk mu di ma wax ne ma damaa bëgg nga sant li ma sëñ Tuubaa ndax wenn weer wi képp am ni donga yi indi nañu fi milliard waaw lu matul ñaari daal may nettali loolu nag daal may weer wi daal daa tegal la waaye matugul ñaari weer dong yi indil nañoo fi ñi lu mat milliard <laughs> te seetal juróomi dërëm képp laa amoon dem jox ko suñ bi addi <laughs> wé- wéyal addi yi jooju nag musulmaan nga mu dagg kon yàlla nu yàlla dimbali bañ roy ci loolu te am ci ak dégg ak topp ah, te ngeen xam ne rek liñ am mooy liñ jëfal sëñ Touba sëñ Fallou euh, jamono yi muy sañ ci Touba boko bi muy dénkaane la loo xam dane dane dane waa jile fab leen seen lépp jox ko sëñ bi fab lii téye lii day war a përëx përëx wéll rek lay waral <laughs> fërëxwel ne ku xamub yax te yàgg seeñu moo koy mën a xam <laughs> mooy li amul ndawal ba noppi am am ab kii ab am pax ne ci am am pax ci biir waa ji loolu fërëxwel dong lay waral fab leen lépp rek jox ko sëñ bi bu ngeen ne ko lépp lépp yow rek lépp daal di baax mu yoral leen seen lépp ngeen noppalu waaye boo nee boo ko joxee lii téye lii la nga ko jox rek la lay téyel la ca des sonal la ñooñu ñoo mën a jàngale sëñ bi <laughs> kon nag eh, yooyu xekk xam tey leen ko bu baax a baax a baax ndax sëñ Tuubaa mi ñu am ma xam nga dafa am bis ci njaareem sëñ Saaliw di ma waxtaanal guddi nag daanaka ca lañ fanaan mu dee waxtaan nag ba di tari nag di ma tari ma tasawuy foon yu njëkk yi xam nga li ci mokkal kenn xamul nu mu toll ba dugg nag ci way xasida yi xasida yi xam nga li mu ci mokkal dafa bari wax ji nag yéemu man xam nga sidna Abdul Xaadir Jeylaani ak Ahmad Tijaan yooyu yëpp da ci ku ci ne tare na ci ba mu yàgg nag mu dugg ci waye sëñ bi te te ba xam ma ne ko ah ko wax ki ko mën a wax <laughs> waaye ni ma yeeyee daal ma ne ma daal déet ne ko ah waaw koy lii ki xamoon naa ki ko mën a wax dong ko wax <laughs> Eh, kon nag alhamdulilahi rabbil bi biñu àndee ki mën a wax loolu mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. sant yàlla boo ko defee nag moom si Abdou Xaadir mi eh, li man gis ci fii ci bi rek yonent bi dañ nekkoon ayun naasi afdal loolu doon jikkoom xaal yonent bi ne kullu max moomil xal bi saduuxul lisaan mhm. qiila sadoxu lisaan naarifuhu fu ma max maa xal bi xaal attaqiyu naqiyu laa isma fiihi wala baxya wala xilla wala xasad waaw yenent bi dañ nekkoon waa ana ñan ñoo gën ci nit ñi mu ne koo xam ne max moomul xal bi nga te doon koo xam ne ku dëggu làmmiñ ñu ne ko ku dëggu làmmiñ moom xam nañ ko waaye max moomul xal bi moo ñu desee leer mu ne mahmool xal bi de mooy koo xam ko ragal yàlla la ku set wicc koo xam ne amoo benn bàkkaar noonu woo kenn iñaani woo kenn yooyu nag moo day sëñ Abdou Khadre ñu kon nag euh, kon xam na ne yàlla boole na ko ci ñi yàlla na nu yàlla dimbale ci jataayam bii ak ak ci li ko sëñ bi faggul waaw ndax moom ñoom sëñ bee leen fàggu moo leen fàggu fàggul leen waaw sëñ bi ci boppam moo leen fàggu ba noppi nag fàggul leen ku ci ne def na ci yow lool ku gëmmu da ko da ku gëmmu sax gis ko waxuma laa koy xool waaw ndax jataayu ku bokk ci sëñ bi boo fa toogee fukki minute ak juróom rek da gis lu ngooteeg nit ñi mag ñi lan lañ daa wax dañu jataayu doomi Sëñ Tuubaa boo fa toogee fukki minute ak juróom rek danga gis li li kooko wuute ak ak nit ñi mm-hmm. waaw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin war nañoo sant nag ndax sant gi mooy suñ digganteeg sëñ bi mënoon na fi gën a uh, sori mm-hmm. ndax uh, tawfeex gi ñu tawfeex gi ñu am ba gis doomi Sëñ Tuubaa mm-hmm. ñi ëpp ci nit ñi ànd ci jullit doomi Sëñ Tuubaa war nañoo sant waaw war nañoo sant bu baax a baax a baax ndax loolu euh, doy na ab yëbbal doy na compte boo ko defee nag euh, ngeen gën a góor góorlu ci lislaam ji gën a góor góorlu ci taalibi gi te xam ne si euh, si blaat mosuma digg ci moom mu ne sëñ bi nee na yaar bu ñu la ko méngalee la ci gën a diis sa bakkan rek moo gën ci yow ci sa diggante yàlla xam nga mooy li ma misaal ci jullik fajar ni mu diisi ci bakkan tëdd nopp loo ko tëdd tëdd sàngoo sa mbàjjee ko dàq waaye nag jóg googee dem julli ji ci la lépp ne lépp yàlla nag noonu la mel moo tax sëñ sëñ Abdoulaye digg naa ci moom mu ne sëñ bi nee na lu baax fu ñu la ko waxee bu ko nig niigal jógal def ko <laughs> ndax donte danga ko def it boo ko defee boo ko defoon bu njëkk boobee booy defaat bi beneen yiw lay doon <laughs> te ñoom dañoo bëgg lépp lépp lépp naat boo ko defee nag la nga xam ne moom laa leen ci dollil ba eh, ak ak loo ci fàttalikuwaat ci waxi mag ñi lu lu ci lu ci teew ci xel rek ndax dama ginnaaw dama ko damay xalaat rek day demee rek ba wax ba mu dikkal ma rek waaye eh, waxi sëñ Tuubaa ji ne mu bindal laa leen ci dara loo xam ne neen ko jàpp ndax fii ne jamono ji dafa toll foo xam ne defaraat jikko yi day lu war te defaraat jikko yi nag li ware ca ca réew ma boo ñëwee fii la raw ndax sëñ bi dafa daf ñoo wax yoo xam ne lu leer la dane ne amma isaa xaalatta karhan xayra man xat kaana aabidan li aqdaari saman fala simil imaana wal islaama wa xayra ihsaanin walantulaama nee na bu fekkee dogal yàlla daa dem ba mooy lu mel nii lii leen dal ba indi la ci réew moo xam ne ñooñu bokk leen diine nga dogal yàllaa ko indi ngay nga nee na bu boobaa yow na nga fexe ba sa yett yi bu ci dara rëcc sa liimaan na nga ko yóbbu ci sa roog seen sa lislaam bu ko foyee na nga yore lixsaan lixsaan mooy loo jëf nga yàlla nga na yàlla tax teyit lu jafe la nag ni ko sëñ bi ni ni ko suñ waxee ci tasaru sixaar rek day boo bo booy jaamu yàlla da ngay yaakaar ne yàllaa la yàllaa ngi lay gis boo ne woon ci mu néeg yow dong it da ngay yaakaar ne maa ngi ci su contrôle yàlla hmm. loolu mooy insaan yett yooyu boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko boolee rek sa eh, sa diggante yàlla dana jag loolu la ñu sëñ bi dénk te it wal taxasaroo soxbata kulli faasixi iddaaka bil muridi gayru laiqi digal naa leen bu leen àndee ko saay-saay ndax loolu yellut ci murit kon ku di murit ku ne na nga wattandi ko loolu waxaalitil muumina bi taxaawuni amma xalal ada fala tuxaawini sa mbokkum julitit na ngay ànd ak moom di dimbalanteeg moom nanga nga moom tey dimbalanteeg moom waaye nag bu dee lor bu fekkee ci lor lor nit la wala lu gaañ nit la wala lu yàqal nit la bu ci dimbalanteeg moom hmm. wala taxaawano alal ismi wal xudwaan dégg nga wal tatrukanna kullama ay xanta bi kawnihi l xaraama aw zananta lépp lu la wóor ne daa araam wala da wax ne man di jàngum waaye de cinéma leer yii na ko bàyyi <laughs> ndax lu daanaka ñaare lu ne tikki ci sa xel rek xamal ne lu ñuy tere la lu lu lu lu lu yàlla terewul rek ñaare dóorus kenn mooy sëñ Tuubaa sax daa bi danaa wax naan jërut kenn jërut xoolub téere jërut dara lépp loo xam ne boo koy def ba nga fekk ba nga ko ko nettali jàppal lu baax a loo xam ne boo koy def bëggoo ko la fa fekk bëggoo ko ko nettali bàyyi lu bon a ngoog <laughs> loolu loolu sëñ bi laa ko toxale mu ne sëñ bi ko wax kon nag fa kul xalaalan in arat an tuti allaha wa rasula yaa muti boo bëggee topp yàlla nag li lay dimbali ci topp gi mooy dangay fexe bay lekk lu lew ndax boo dul lekk lu lew dangay ngay tayal ci jaamu yàlla waaw tayal googee mooy tax doo doo ci sawarati doo xam nga jaamu yàlla fii da tem-tem xalaawatu xalaawatul ibaada fekkee da ngay lekk lu araam nag neex neex boobu doo doo ko doo ko yëg te boo ko yëgul doo ci sawar boo ko defee nag lu dafa am tem-tem suñu sa yi dara wax naan njàngum xasida dafa am dafa am dafa am euh, neex neex bu ci ne ci man boo xam ne buñ koy jàng daanaka du ma bëgg kenn wax da daal ne daal ci teg leneen daal ne xasida de mu daa mel ne seetlu naa ci leen daal ndeke moom fu sa maqaama toll ci sëñ bi rek sag dégg xasida foofu lay toll <laughs> hmm. man ama rabbahu mahal xaraami falaa yafuusu daxara bil maraami koo xam ne yaa ngi wuti sa borom waaye lu araam nga nga àndaaleel ah loolee ngay wuti doo ko am yàlla ci yàlla musal ndax man bil xaraami xabadallaaha falaa yakunu illaa naadiman munsafila képp koo xam ne lu araam ngay jaamoo yàlla xam nga loo ci fekke rëccu <laughs> regretté yàlla ci yàlla musal sëñ bi nag di dañoo digal ñun ñëpp ku ci ne na nga wattu sa cër yii fal taxfasul ahda batnun walisaan farjun wa rijlaani waxee naa ni yadaan sëñ bi nee ku ne sa sa cër yii ma lay tuddal na ko wattu sa biir sa làmmiñ sam pëy sa ñaari tànk sa ñaari bët sa ñaari loxo nee na na nga sàmm yooyu boo ko sàmmee de da nga mucc wantabihon fi anna al ahda gada aleykum wa tasadu fi ma warada neen yéen ñëpp nangeen ngeen yeewu ci xam ne ku ci ne bu ëllëgee sa cër yooyu yàlla day tëj sa gimiñ waxloo cër yi bu ci ne ne ko analu lu diw doon def cër bi di waxal boppam al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun hmm, bis bis mat di bàyyi xel la bu ko defee nag li ci topp mooy képp ku xam ne am nga njaboot te am ko ci Sénégal euh, am nga responsabilité bu rëy rawati boo ko amee fii nag yor nga nangami responsabilité yu war ci sa ndodd ana loo war a njëkk a tere alxultatul faasida fexe ba sa doom di jaxasoo ak ñu bon ñi ndax sa doom boo ko sànnee ci mbedd bi fal waladu alladi yulqaa lissaalihi wa yutruku li quranaa i suuyi wa rufaqaa il fasaadi fa min al badihi an yatalaqana minhum lughata laani wassibaabi wasshatima <laughs> bu fekkee dangaa fab doom sànni ko ci mbedd mi normalement mooy lii la fay jële war na faa jële mën a saaga mën a ŋàññ a def lu suufe te yonent bi nee na inna min akbaril kabairi al yalxana rajulu waalidayhi yonent bi nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a rii ci bàkkaar nit kuy saaga ñaari ñaari nday ñaari waajuram ñu ne yonent bi xiila yaa rasulallah kayfa yalxanu rajulu waalidayhi waaye nit nu muy saagaa ndeyam ak baayam xaal yasubbu rajulu abar rajuli fa yasubbu abaahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu nee nam kii day saaga kii dalay saaga baay nga saaga ko baay kon yaa yaa saaga sa baay kii saaga la ndey nga saaga ko ndey kon yaa ngi saaga sa ndey yonent yooyu ko wax de loolu nag ci mbedd mi lañ koy jànge waaye boo leen jàngaloon ci kër ni war a wax teggin yi ak yar bi fi teel leen yóbbu ci daara ñu teel a xam bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani baat bu gàtt la te lépp mbootum alxuraan a ngi ci dal basin sëñ bi wax na ko fa xay sumaa yu basmili sabiyu fii maktabin cib jàngu yaktub dana bind la ñeel ko alxali aji kawe ja wa waalidihi ak ñaari waajuram wali man ak ñeel ka nga xam ne yoo xam li moo koy jàngal lu mu leen di bindal baraa atan ak dañ min naari ci sawaraam fal tax na moom màng leen képp koo xam ne fam nga sa doom yóbbu ko ci daara ba mu jàng bismillahi rahmaani rahim képp nee na yow ak ndeyam ak baayam ak ki koy jàngal bindal naa leen ci ngeen set wicc sawar kon yéen ñëpp góor leen ci yóbbu seen gone yi ñuy jàng alxuraan xam lu ñu war a jullee xam lu ñu war a musloo xam lu ñu war a tari suba ngoon ci ci seen jëmm mu di leen aar di leen aaral seen diine di leen aaral seen eh, diine ak seen jëmm dégg ngeen ndax loolu kat buñ buñ buñ ci buñ buñ ci góorgóorloo mooy rafetal jikko yi ndax rafet ji lislaam lim indi lépp xosnul xuluxi moo moo moo tax mu jóg rafet fexe ba jikko yi rafet rek jikko kon nag yéen ñii lii bu ngeen ci tënkoo da ngeen am rafetu jikko te rafetuk jikko ndax eh, yenente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne dafa wax ne déedéet dama dama àndigum addis bi ab ab société bu fekkee dafa nekk société boo xam ne yaxalibu xalaa nafsi aljaanibul bahim bahimiyu hariyun wa eh, jaraa wara alshahawaati walmalasa walmaladaati yaqtaximu ila buluqiha kulla xurmatin wa yasluku min ajliha kulla tariq laa xayaa yardaxuhu wala damira yaqmahuhu wala xaqla yam yamnaahu bu fekkee day société boo xam ne wàllu bahima gi mooy lu mel ne société yi nga xam ne duñ duñ du duñ yoruñ diine lislaam nga xam ne kersa ëmb fa li ñuy wax damir damir moom moom mooy mooy li ñuy wax conscience maanaam li ne ci sa biir loolay jàjj amoo ko amoo kersa te yonent bi dane isaa tastaxi fafal te société yu bari yi ngeen di dëkkal li ñuy fexe ba dindi ko ci nit ki ci ngoneem mooy kersa te kersa yonent bi nee bu dañee ci yow rek loo neex mën nga ko def amatoo baras daal te ñi nga am na ku ñuy wax aboon waas koo xam ne dafa wax ne ñi nga xam ne liñ jàpp mooy inama dunya taxaamun wa saraabun wa nadaamun fay saa faataka haasa faxala ñi nga xam ne jàpp nañ ne àdduna lekk ak naan ak ak bokk di naan lu ñuy tere mooy nadaamu googu <laughs> <laughs> nga ne wut sum na diim rek ngeen bokk di naan ci baar yi jàpp nañ ne loolu mooy adduna jàpp nañ ne fi saa faataka haasa fa la dunya lii rawee ci adduna sa ëdd eh, mooy nga tàggoog adduna xam ne jote yow moom dara ñii dunde noonu ku bëgg sa sa njaboot di jaxasook ñoom te te te eh, yaa ngi leen jëme foofu ñooñu ne te foofu ñooñu ne nag ak kàmb la xalaa sara bu boobaa ñi sag ñu ngi ci xalaa safaa jurufin héer <laughs> ñu ngi ci kaw pindu kam bu boo xam ne day golli ko te it fan xaar bii fi neeri jaxanama rek <laughs> bu ko defee nag ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ku am doom war nga koo tuddal ci bis juróom-ñaari fan ba alxulaamu yu xàqu xan hu yowmu saabi wa yu samma wa yu maatu xanhul ada te bu amee juróom-ñaari fan nañ ko wat bu amee juróom-benn at fii saa balaxa sit sinin uddi ba bu amee juróom-benn at tàmbali ko yar way saa balaxa safa sinin onze la xan firaasi ci la ci li ci ngir yi nag dañoo bari hmm, waaye mi ci addis bi moom bu amee juróom-ñaari at rek nañ ko daal tàmbali tàqaleeg eh, kii ci benn lal nga xam ne du bokk kenn menn mbàjj bu fekkee am na fukki at ak ñett ñun bu dee ci risaala fukki at lay wax waaye waa addis moom li wax fukki fukki at ak ñett boo ko amee bu du julliwut na ko dóor waaye man bu dee risaala bi ñu jàng fukki at rek bu ko amee bu julliwut na ko tàmbalee dóor boo amee fukki at ak juróom-benn xam nga ñi booba lislaam booba naar yi booba dañuy teel a denc boo amee fukki at ak ko wutal soxna zawajahu su ma axasa bi yeddihi wa xaal bu ko dee nag ma daal di jàpp ci loxoom ne ko addabtuka wa allamtuka wa ankaxtuka wa axusu billahi min fitnatika fi dunia wa azabika fi laaxirati wàccoon na ma ak ndax jàngal naa la yar naa la may naa la soxna <laughs> waaye loolu lépp nag góor ñi am nañ ci eh, bu ci góor ñi amee benn responsabilité ndey yi am nañ ci ñaar ndax am na waykat arab boo xam ne dane wa hal yurja li atfaalin kamaalun idar tadao su dayyan naaxisaati nee na bu jigéen ñi manqué rek di nàmpal seen gone ci weenu weenu manqué gone yi duñ mën a tee mat kon loolu nag mi ngi jublu yar bi mi ngi tàmbalee ci ndey di teel a euh, wax doomam li mu war a wax di ko teel a wan diine di ko teel a yar ci diini ji di ko teel a bëggloo lislaam di ko teela xam loolu lan mooy eh, njàngum alxuraan di ko teel a tàggat ci julli moom ci boppam it mu gis muy julli xam nga sëñ bi mi nga xam ne bokkut kenn du nit waaye nee na naafilaak yépp ne waaye loolu yépp day jàngale dana naafilaak yépp maa ngi ko teel a xame ci maam jaara waaw nee na bi damay gis rek muy muy fanaanee julli wut lu mel ne si njàkka ci biir néeg bi waxtu julli bu bu ñëpp jàppee ni ñu ngi tëdd booba ma booba ma ngay waaye booba nag fekk na waajtaayu sëñ bi jiitu ci moom <laughs> waaye téewut nag sa eh, moo yonent bi alayhi salaatu lu ci ne yàlla da ci wan wan lu muy jàngale nit ñi waaw waaye loolu nag man ñun ñi nga xam ne ay nit lañ ñu nit buñ bu royee ci loolu rek danañ mën a dem sa ndey ak sa baay buñ boo leen dee gis ci ngone doo dégg ñu saaga doo dégg ñu euh, def lu lu lislaam di tere bu waxtu julli jotee ñoom ñëpp ñu wa jàpp dem julli boo ci màggee boo boo faw ngay julli ñu di ci jaaj it ndax ñun ñi bi ñuy gone si xarit dañu daa fëgg bu fajaree mu ne ñu waa ji dee ñëw ci jàkka ji ndax am naa fiq moo dul julli fajar maag suñu seex yi wax nañu ko ba tey di leen dem ci jàkka ji ndax ndax am na am naa fiq du julli julli fajar bu ko dee ku ne da nga ragal doon munaafiq sax nee na nee fajar daa jëfe nee na daal nañ daal nañu nettali daal ne waa Madina gépp maase nañ ci ne assalaatul wusta mooy fajar loo tax mu jafee julli waaw mooy julli gën ci julli waaw ñi dañ ko def tisbaar waaye waa Madina moom li ñu gën a lëngal mooy euh, sub suba la te it jafe na te yàlla la gën a baax day jafe <laughs> kon nag yàlla na nu yàlla dimbale bu ko defee nag yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen ne fii ngeen di tàmmal seen doom yi kër sëñ Tuubaa yi ak dayir yi ak xalaqaatu zikr yi mooy fi ñu jàngi xasaayit waaw ah daari alxuraan am na fi ah loolu moom loolu moom alhamdulilah jàngale ah loolu de moom loolu de toorkal la moom wayan baxi daal lanaa an nuwaffira lahum albiata saaliha misla talaaxi fi dawaayir wa doori seex al xadiim wa xalaqaati dikr yett yooyu bu ngeen commencé lépp baax fexe leen ba am indi leen bii bu baax bi environnement bu baax rek boo xam ne mooy lu mel ne daje ci kër sëñ Tuubaa gi ñu daje ci dayri yi talu ci sëñ bi ndax yéen ñëpp ku ci ne sa baay dalaa nàmpataloon ci ta yoon wi boo sàgganee ba nàmp nàmpataloo ci sa do sa doom nag wàcc wàcc nga lu rëy te bu ëllëgee des des na la ko laaj <laughs> di leen tàmmal eh, eh, kër sëñ Tuubaa di leen tàmmalit géewi xasaay di ndax sëñ bi kat nee na kitaabati taduuru taxta alxarsi baynal kiraami aabidi sil fars sama xasida day wëndeelu ci ron aras ci diggante gaa yu baax ya <coughs> ñoo ñi nga xam ne ñoo dàq jaamu yàlla sama mbind foofu lay wëndeelu di fa liggéey te du taxaw dafa dafa mel ne ay missiles yum mu sànni la yoo xam ne rek day wëndeelu te du taxaw te képp koo xam ne eh, nee na gaa yu baax it sama sama xasaayit da leen di yëngal xaajat xasaayit yi xulooba saalihin wali yaxoodullaahu suuli kullahin te lépp loo xam ne maa ngi koy ñaan yàlla yàlla dana dama koy daal di xool fa saasa kon euh, xase xasid xasidaam yi mën naa daf mën a jël bu waaw lépp loo xam ne moom nga moom ngay ragal xaside yi mën na ko puus mu dem lépp loo xam ne moom ngay xëcc xasi xaside yi mën na ko puus suñ saa yi daa wax naan xaside man xaside bu ma koy jàng du ma tifli dara ndax fekk naa fekk naa borom fàggu fàggu ci lu ëpp lu ëpp lu ëpp lu ëpp li ma bëgg a ñaan du duma du ma jàng xasaayit ma def tàllal sama loxo di ñaan ndax ndax fekk naa fekk naa sëñ bi fàggul fàggul ñu ca lu ëpp li may xalaat ba di ko ñaan <laughs> kon nag yàlla na yàlla dimbale boo ko defee it faw ma soññ leen it murit bu ne nag nay nay góorgóorlu jàng alxuraan adim tilaawatan li zal kitaabi walaw salaasatan min bi nee na nag neen saxal di jàng alxuraan boo xasee fer ijji del fexe jàng alxuraan donte ñetti isib la ci bis waaw kon nag eh, loolu ko ci sax da nga xam ne yaa ngi liggéeyal sëñ Touba te sëñ Touba li nga doon waxtaan fii léegi sëñ Baxat daanaka wax alxalqu ayaalullaah ki nee na mbindeef yi ñooy toolub yàlla ki ci eh, <coughs> ki ki ci yàlla gën a bëgg nag mooy anfahum li yaalihi mbindeef yi ñooy bi yàlla ki ci ki ci yàlla gën a bëgg nag mooy ki nga xam ne moo gën a jariñ njabootu yàlla gi kon nag yàlla na yàlla dimbali boo ko defee nag ngeen góor góorgóorlu bu baax ci lislaam ji góorgóorlu bu baax ci taalibi gi bu ko defee nag ma soññaale it ci forsatu bi mboolem dayri yi nga xam ne ñoo aju ci ko Sëñ Abdu Xaadir ci no noonu ndigal yi nga xam ne moom lañ leen jox nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax gën a boole seen bopp gën a euh, fonk euh, dayri yi te di ko dundal sëñ Tuubaa moom dafa am fulla yi ne sëñ euh, bi laa moom laa daal mu di wax sëñ mu sëñ bi dafa am fulla lool ku ne ci moom rek mu ne ci yow waaye kon nañ fexe ba ne ci sëñ bi rek waaw bu ko defee bu ko defee day daal nekk ci noonu bu ko dee nag te moom bu nekkee ci noon suñ àdduna jekk suñ àllaaxira jekk ndax koo xam ne boo duggee bàmmeel moom dong nga fa yaakaar adduna ji it foo jàqe boo ko wooyee te sellal mu wuyu la waaw nee na képp ku ma woodee te te gisoo ma ci yow la moom la suñu waxal boobu waaw se ba sa bopp waaw waaye waaye bëgg naa ku may wax nag doon lu ko mat loolu loolu la <laughs> kon nag yàlla na yàlla dimbale def ci ñoom dégg ak topp bis bii nag lépp lu fi waaye indi woon ci aajo yàlla ñu ndimbalul boroom bis bi ak xaas ji ko sëñ Touba defal yàlla nañu dimbale ba euh, fajal ñu suñu aajo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa kullu aamin wa antum bi xeyrin asalaamaaleykum wa rahmatullah amin amin amin أعنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام صليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأرض وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن اسرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من bi yataxallaqu minam naa isaman wa jumlatil ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal ajaanib fattaaxu wahaabu yaa rassaaxu yaa maliki liftax wahabliya wal soxni bi kun laa dayqi asil aajilan bil bisri mahmadadin xatta uxiim li diinillahi arkan wa kullana qud li najaatin wa falaax wa wafiqanna lis sawaabin wa salaax wal tuxrina bi fiili ma ahbabta wal takfina an fii lima abgalta wala takun mubtaliyan mina ahad dahran bi ma la si yutiqu yasra wa hab lana taysira wal falaha fi kiltay daarin wa najaa wajxalhu ahmada hawdin yaa muhiidu lana maa wata xablahu yoo biir waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusna alxitaami rabbana wa salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslim barkib sëñ Tuubaa barkib sëñ Tuubaa